tey jinne yooyu ñoo dugg ci biir réew mi. waaw ah. euh, ñoom fu ñu cosaanoo jigu jinne yooyu. jinne yi ñu ngi jógee Côte d'Ivoire ñu ngi cosaanoo Mali ay Burkina Faso maanaam dëkk yu sori yooyu. waaw léegi nag comme ñoom dañ daan guerre te frontière ak frontière comme nit ñi rek ak ak yi ñoom benn lañ. Mhm. gis nga ko suba dangay dem Israël jàppante na ak fii wala Sénégal. ak dëkk sàngam ñu ngay xuloo wala Mauritanie ak nangam façon yu mel ne soldaar yi dañuy jokk Hmm. mais nag ay soldats yu ñu jox gëdd. waaw. mais ñun joxuñu suñuy soldats yi gëdd. Hmm. boo koy faj lii sax. Hmm. dañ lay jàpp ku ku ndaw ku tuuti. waaw ndax moom jàpp nañu rek. jinn yooyu jógee Côte d'Ivoire wala Mali wala Burkina Faso ñëw dugg biir Sénégal. yooyu dugg di yàq. fii fan nga jàpp ne mooy seen base ba ñu ñëwee Sénégal fii. seen base. dañuy Sénégal. bu yàq rek il faut que nag ñuy génn ay sarax pour suñu rawaan nekk ci suñu dëkk bi mën a xeex ak ñoom. loolu mooy pexe bi. mooy pexe bi. yan sarax. waaw mooy yu ñu joxe rek. joxe ci yeneen. non xam nga waxoon naa leen ne. Hmm. kër gune ku ko mon hmm. na nga toog ceebu yàpp ceeb bu weex. Hmm. moo xam yàpp bu mu des bu jën daal. bu yàpp lay def ñetti ndab. bu tuutee su ko ëppee it baax na mhm. nga seet côté boo xamee ne xam nga jàkka nga koy yóbbu mhm. ma da ngay woo nit ñi xaw ma ci daara nga mhm. nga saraxe ko fa ah buñ ko saraxee nag ñëpp ñaan pour jàmm am ñi nga xam ne ñoo nekk yi dëkku ali ñu def ko laax wala ñu def ko cere ñu amul ceeb waaw fu amul laax boo mën a def cere nga def ñetti ndab li la dalee alxemes jëm ba aljuma ku ko mën a def cere na ko def guddi ku koy def laax walla ceeb na ko def bëccëg diggante alxemes ak juma hmm. waaw sarax yooyu ku ko mën nga def ko ci kaw ku ko gëm waaw ndax lii ñuy wax am na ñoo xam ne duñu ko mos a gëm dëgg la àdduna bindoo noonu kenn ñëpp duñu mën a gëm rab yi ñu ngi ci dëkk bi rab yi ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi fii te jéey yi ñoo ko fi indi accident yeeg yëpp ñoo la gone yi agressé agression yu bëri nag dina am loo xamante ni itam ay waajur yu sagan lañu. waaw ndax am say doom doo ko dundal doo ko jox mu lekk mu naan. Mm. moom bu xiifee gis benn waaye bu yor fii ay cent mille am di jaagar jaagar yi dem. Mm. booy dañuy dem coono boobu jàpp leen dañuy vaase wu. ndax boo bëggee takk fukki jabar. Mm. ñetti jabar fu ne nga am fa doom te doo leen jox ñu lekk ñu jox naan loolu aussi du ay rab. <laughs> loolu de. waaw loolu waxante dëgg rek. waaw yow fu ne nga takk fa jabar. fu ne nga am fa doom. te sa salaire matul cinq cent mille. waaw. fu ne nga am fa juróomi doom. waaw li ma bëgg a ñëwaat ma la waaw waaw léegi gune yooyu. buñ xëyee. añuñu. réeru ndekkuñu ñu gis benn jigéen mu gàddu saakam wala benn paa bu yaakaar yor na. dañ lay dogaale parce que xiif naa ko indi. loolu responsable bi bu para parenthèse am na ñoo xam ne dañuy am ay doom ñu ngent ni rek mais après ngente seen yoon ñëw ca. dëgg la de. loolu aussi jar waaw jar naa jàngat léegi ci li ma bëgg ñu waxtaan yéen yàlla dénk na leen ci wàllu woowu fànn woowu ndax yéen a ngi ciy jël ay pexe yoo xam ne yéen a koy jël seen bopp di ko def ngir tamit dëkk bi dal dëkk bi métti na de yow chaque jour boo yeewoo da nga dégg njombe Sénégal. waaw man moom li ma ci mën. waaw maa ngi koy def. comme lan dinaa li ma woon a génn ay sarax. gis ko yàlla won ma ko. dinaa ko di wax di def. Mm-hmm. ndax àdduna moom ñëpp duñ nangu am na ñoo xam ne débat bi ngay wax. Hmm. dañ la ciy mere sax képp kuy dem. Hmm. débat bi arrangé wu la mu leer nañ nañ nañ nañ hmm. kuy ànd ak jinne di liggéey nekk nit ku setul. ah mbaa ñu jinne yi du ñu dab ci yoon. ah dañuy ñaan rek yàlla moom am waaye nit moom day day day jaat ci dëgg. mais lii ma lay wax nii. mu leer nañ nañ nañ laa lay wax nit ñi ñu tooñ yëpp débat bi du leen arrangé. te képp koo gis muy seytaane diine rek la mën a mbubboo pour ñu gëm ko dëgg boobu arme arme rek la am kon nag mere naa ñi nga xamante ne ñoom lañu di di di nax nit ñi yërëm naa ñi nga xamante ne aussi xamuñu te bëgguñu ku leen xamal. yow ñu nga mere noonu xam nga leen. yow gis nga ne am na ñoo xam ne ñii déggoo wax ji dama ne ñi nga xam ne ñoom lañu hmm. di di riiral nit ñi waaw mën naa leen torop yërëm naa aussi ñi nga xam ne xamuñu ko hmm. te bëgguñu ñu xamal leen ko hmm. déggoo wax ji de la loolu loolu la mbir mi bindoo mais daal boo mënee jàllale sarax bi moom a gën a am importance ku ko mën a def def ko képp koo xamante ne nag accident yi moo la arrangé moom moom doo nangu débat bi am lool sax dana ci sukkandiku laaj la benn mbir parce que dañ ñun dañ koy dégg ci askan bi de ñu ne ñenn ñu bëri sax dañuy takkal derewu ñi nga xamante dañoo siiw tey tey xëccoo réew mi naan dañuy def ay affaire yoo xam ne sacrifice lay laaj sacrifice humain maanaam faagagal ay bakkan ngir mën a am luñ bëgg ndax yow mën loolu am nga ci ay firnde ah man gëmuma loolu quoi ah. yàlla ma yàlla baal parce que fii man fàttaliku naa loolu moom ñu naan puuni bi ñi ko fi inde dañuy mooy ñuy wut alal aussi hmm? dëgg la am na ñoo xamante ne aussi dañuy. ñu naan mbaam di dagg mbaam parce que tamit dañ yoon yi dañ ci daan fekk ay mala yo bopp mala yoo xam ne ni ñu koy tegee daal day xaw a tey xel. yooyu ñu ne bàmmeelu sangam sulli nañ ko jël fa nangam ak nangam. loolu mooy wut kàttu alal yi nag dégg ko fi en général. Mm. Euh, gis ñuy sulli ay yooyu moom. Mm. Euh, yàlla ma yàlla baal mais ci cadre politique la gën a bare. Mm. waaw mais jël ay béjjén suul ci armée nag. yooyu mom mbër mom ci ñoom lay gëna bari. ndax ay nit dinañ ñëw di def loolu di nga am ay client yu lay def loolu. Euh, dafa bi compliqué na. <laughs> compliqué kay. waaw. waaw compliqué na. Hmm. compliqué na. dooy am client yu mel non bon du ñatt ñu ma koy wax. Hmm. waaye débat boobu dafa compliqué. waaye man moom duma sulli neew. loolu moom. mais mais di ngeen teg. xam nga la plupart aussi. Hmm. sëriñ yu bari ay maçon lañu. maçon waaw xam nga maçon. commande commandé rek. waaw béton commandé fer. Hmm. Ah, exemple pour daal gàttal waaw. waaw mais day retourné waat rek ci ñi ko soxla. Hmm. en général ñi ko soxla ñooñu lay doon. mais yow dina lay arrivé nga hmm. am client boo xam ne loolu lay bëgg. nga tegtal ko na ko lii nga war a am maanaam bu waree am lenn ci niw moom su ko jaree rek mu dem su lu ji non boobu débat hmm. euh, day compliqué man xam naa du ma def yooyu. doo ko def du ma def yooyu. Hmm. mais daal li am koy wax quand même. léeg nga gis nit ne ma ndax doo ma defaral nangam te la plupart ñu koy laaj. Hmm. ci domaine politique la ñuy nekk. waaw waaye nag dinaa la jéem a yedda tourner say wax jéem laa gëmloo leneen mbir ba nga bàyyi loolu ah. ndax boobu baaxut. mais léeg ni de dama dégg ni so amé nangam mën nga ci def nangam. mu sant la mais ku la plupart aussi ñu nan du ñu xamé yow nit dina am ben gom bo xamanteni ne ni takoy a koy fay. xam nga yooyu mom faaw nga ne bo mënee am yaxu nit. waaw yaxu nit fu ñu ko mëna jël ci armée yi. waaw mo ta léeg ñu sul ba gis yenen yax yi gaay diko di diko duwel di ko dugal seen parce que dañ koy jaay bëgg a ah yow itam boo demee fii nga gis ñu jaay bopp bopp bopp golo jaay bopp bukki ah, lu ne ngay gis jaay yaxu yoo xam nga ni yaxu nit am na fa loolu koy saxe la koy àggalal rek mais da ngay gis ne wutal yooyu da koy am fajeku góom waaw day am ay góom yoo xam ne ay saytaani ñoo ko def hmm. dañ koy boole yax ba dañ koy xoos jël puudar bi jaxaseeg moom mooy góom yooyu nga xam ne mënut a waaw. yenn saa yi ñu woowee góomu ndeewaale ah. voilà jaww yooyu nag dañ koy faj mais pour nga faj ko il faut nga am yaxu nit yooyu nag doo ko wuti yow sëriñ bi da naan boo ko mënee am ah. robkat yeneen ngay gis ne ko diw man dama am garab ma bëgg a boole ak yaxu nit mm-hmm. boo ko amee sa góom bi dina mën a wér. xam nga yooyu moom man jàpp naa ne loolu garaawul. li bon kay mooy nit ku ñu suul nga dem sulli ko mais nit ku max boobu boobu ñuy génn ay peel nga am goom bi pour nga faj ko yooyu yooyu day garaaw. garaaw ah yow docteur yi du jël xolu nit ku dee yóbbu ko feneen. kon loolu garaaw na ah dañu waxante dëgg rek xanaa ñu def moo garaaw ah waaw. ba tey dañuy xuus a jëm ci wàllu actualité bi élection yi ñu ngi ko dëgmal. Hmm. coow li commencé na euh, ñu ngi pëcc xoo lan nga ci gis. Euh, lima ci gis rek moy sarax yi ba wax su kay tambale sarax yi heure bi rek mën nañ ci am jam lu bax aussi ak ndox mi ñu jëm ni ndox ku ci nawet bi ñu jublu ni waaw géej waaw waaw ñi nga xamante ñoo yor dal mhm. kep ku yor dal mhm. te bëgg mucc ci ñooñu waaw ngay wut benn bouteille bu weex waaw nga tak takk morso du xonko mhm. wut benn seetu bu ndaw boole ko def ko ci sa gaal. si ñoon ñan jinne yi wala. mooy rab yu bon yooyu dinañ dugg ci ndox mi. mën na noo yàq lu bëri ku am machine buy dugg ci géej. muy mm-hmm. gaal. wala yooyu. mën mm-hmm. nga ko cee def. dangay jël benn butéel bu weex nu mu toll rek. Mm-hmm. nga boole ko ak morso bu xonq tàkk ko. dal di jël benn seetu. ah aw ko boole ko moom def ko ci sa gaal. seetu bi da koy aw. non mais day am luy feeñ miroir bi luy feeñ dina am niñ ko organiser boko joxe koy aw am niñ koy defé mm-hmm. nga boole ko bouteille bu yëm ak morceau bu xonko tak ko ci sa bop gal mm-hmm. koku jini du jàkkaarloog mom inshallah motax bo gisé kër gu jini dek sax bo ca dajé lolu day day tox mm-hmm. waaw wala mu jaar ci yoon sa buntu kër dang ko fay daj man na toxu yooyu am amna solo politique bi lan la way politique bi wara mëna def ba fitna du juddoti parce que loolu noonu fitna yi waaw fitna bu juddu dal képp koo xamante ne gëm nga li may wax nga mën a def sa sarax ñetti ndab mu bañ koo manque mm. ceebu yàpp nga saraxu ci penc bu la jege à de ñett daal jëm kaw jëm kaw sa doole mu manque ñett na mat ñett rek mm. nga saraxe ko rek mm-hmm. nit ñi ñaan ci koñ ba nga boo ko mënee booba deret mën naa bañ a tuuru foofu buñ ko defee nit loo am rek ñoo xam ne yàllaa ko indi comme ni Sénégal yi tam. koy gëmee quoi waaw parce que faatu rek ñu ne yàllaa la yàllaa ko rey waaye buuse moom ah ñaareel mooy rindi quoi mais yàlla mooy rey. voilà élection yi tamit présidentielles yi ndax yow euh, jàpp nga ne tey kan jàpp ne mooy falu. bon nee naa la man du ma dugg ci débat boobu. yooyu boo ko waaw day baax tamit loolu moom day baax tamit waaw xam nga suñu bopp la xam nga bu fekkee ñetti mbër yi war a bore. Hmm. man du ma créer sama bopp ay noon mais barke sama baay xam naa ko mais man maa bëggul am ay noon ci yow mu ngi wax kuy falu nii kon ko ni leer nañ nañ nañ waaw loolu dañu koy sifle duñ ko wane ñun suñu diggante ak yow dinañ ci wax nga bind ko jàpp ko barke sama baay bu amul wutal xaj tudde ko sama yaay hmm? lu leer nañ laa la wax d'accord ndaxte euh, tey hmm. am na kilifa yu bari nekk fii ci dëkk bi waaw xam naa ne duma la ko wax ni ci kii mais dinaa la ko day ba ma leen waxee ne yaay jàmme day wàcc. Hmm. leer na nañ. dëgg la de. ah. wàcc na de. te itam lii may wax lu leer nañ la am na benn vidéo boo ko yónnee bi ma ko naan jëlal la ngay jox ko Adama Barrow. Hmm? lu leer nañ nañ nañ laa lay wax mais nag xam nga toog nag dama yor ay nag yor ay xale yu liggéey ci man. Hmm. xam nga yor ay ki xam nga bu ma yeewoo rek langue politique bi rek ma dab naan diw da ngay daanu diw moy yek diw moy wacc yoy day indi yo xamanteni ay moom man dal lima gëna ñor moy dal jamm yek rew bi dal réew li def bi jamm am mais mbeur bi mooy yek bi moy wacc dal nay bi gis nga ci njariñ ma wa gis na ci njariñ gis na ci njariñ gis na ci ay sax sax yu dugg yu commencé dugg di lekk ci gerte yi mhm. yi commencé yàq ay sax ay lu mel ne ay sekantal yu demee noonu waaw xam nga mais yooyu yëpp ay sarax moom mën nañ cee dimbale dañu góob dara daal waaw tàmbale ko ci lu ma maa ngi gees si loolu ndax war naa mën a def benn ndaje mhm. ak samay mbokku saltiki yi nga xamante ne dañoo dëggu doxuñu ci wàllu politique mhm. après ñu wax seet lu ñu war a def mais daal am nga njort ne daal am na loo xam ne bu ñu ko defee moom nawet bi dina neex am naa ci njort mais faaw ñu respecter garab yi ñu leen di dagge dafa ñaaw forêt bi niñ koy toje moo ñu indi jéye bi nañ seetaat nu ñu dagge forêt bi ni ñu dagge àll bi nu ñu yàqee nu ñu toroxali garab yi nañu seetaat mbir moom beneen nit ñëw rek nga jox ko cent hectares mu dagg àll boobu yëpp di wut ay kayit di jéem a jaay yooyu yëpp nañ ko bàyyi dara amu fa yàq réew mi rek mm-hmm. waaw voilà euh, yegg si leen si cappandalu kii bi suñu batterie bi euh, réalisateur bi mu ngi wax ne que mu ngi signalé. waaw euh, yan kaddu ngay mujjëlee. kaddu yi may mujj mooy di leen ñaanal di leen gërëm seen société bii ngeen taxaw waaw mm. yàlla leen yàlla yóbbu fu këwe. amiin fu raw seen njort. amiin yaa rabbi te actualité ngeen di dox ci réew mi pour lu jë dabax réew mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal yàlla bu leen ci dellu ginnaaw te yàlla ngeen ci am ndam. di ñaanal Sénégal yëpp nag. di ñaanal Sénégal yëpp. di ñaan nit ñi aussi mm. eh, ñu bàyyi rek nasaraan yi nga xamante ne ñoo ñëw ci réew mi rek mm. ñu ñëw ko rek teg ko ci suñu kaw bopp yi rek dañu jéem a fexe aussi ñun ñu am na ñu def ñu ñu dooleel béykat yi mm-hmm. dooleel sénégalais yi jéem ay projet mm-hmm. dooleel nit ñi daal mm-hmm. ndax topp dafa am fu muy yem bu ñu topp tubaab yi ba léegi dafa yàgg kon asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yàlla na jàmm ak ci réew. jërëjëf Korom ak fay ñu ngi lay jaajafal yow itam ci disponible bi nga xam ne may ñu ko xam nañ ne da ngaa xat lool waaye jël nga ci sa waxtu euh, jagleel ñu ko ngir lépp lu jëriñ askan wi te ñun tamit loolu tax ñoo jóg euh, incha allah rabbi euh, ñu ñaan yàlla rek may ñu wér ak fekkee ba ñu mën a dajeewaat ci yeneen jëmmi jamono ci yeneen ponk yoo xam ne mën nañ koy waxtaanee ngir mu.